رمى قائدي وقولي والعمل وكان لي بما يسر من امل رمت صلاته مع تسليمي للمصطفى المعلم العليم مدى موم لا ني نيك سي اتم موي سي عبد الصمد مبكي موم شعيب ديكو نيانال يالا سونو بروم ياغال كو yàggal kilifaam yu baax yi nekk ci kanamam ba li ñu yéenee liggéeyal seen way juru baaxu sëriñ Chouaïb bu ñu defee ko ñu ko bëgg yëpp di siyaare kilifa yi ñu bokkal jotaay bi yëpp jërëjëf sëriñ Maam Cerno bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallama taslima abu madiyana yaay sayxu islaam daayoori dongaam ba fekki bamba abu madiyaana man tey ji dal ci barke sayxuna ay waxti bamba abu madiyana yaay sayxu islam daa dongam ba bamba jërëjëf sëñ sunu kilifa yi nga xam ne ñoo daane seeni kaddu léegi te bokk yi nii seetaan mën a daal xam ki ñuy waxtaane ku mu doon ndax bu ñuy waxtaane jëmm te ña koy waxtaane dund ak moom seen xam-xam mate ko seenu taalibe mate ko seenu nite mate ko bu ñu nee la nun de ki ñuy waxtaane mooy ki ñu defar da ngay mën a xam kon ki ñuy waxtaane ku mu doon te loolu alhamdulilah yàlla may nañu ko ci jataay bi suñu kilifa yi ñu bokkal jataay bi sëriñ yi bu nag alhamdulilah bu fekkoon ne sax ndaw la luy door a juddu tey defe naa bu amee ndimbal te déglu yu baax yi bàyyi ko ci moom jëm ci jullit ñi dana am de ci jéem a xam kan mooy sëriñ yi bu doon ko ne bokkul sax ci aw yoonam waaye ay laaye biiram rek ndax lislaam dañuy wax ne diine laaye biire la te defe naa laaye biire sëriñ bu waxtu wu nekk mi ngi mi ngi mi ngi wéy nit ñi di ko mën a jariñoo loolu ay tiyaabam ak yiwoom kenn xamul lu mu toll waaye loolu lépp bëccëgam amulon benn yëngu gubudul Al alquranul karim loola nak bu fekkoon ne dafa euh luy dox doon jëm day mel ni boo ci ëttub serigne Souhaïbou fekk fa alquran am fa waccu way bo ne bu rëy rëy la bu yaatoo yaatu la ndax serigne bi jang ak jangale dafa nekkon yitem xam nga bu fekke ne serigne touba dafa wax ne sama gemiñ muy buron chat ku chat di japp sama cat moy ñak dekk Touba defa jàngale alquran kon day melni ku fa nek diko fa def serign bi nga koy nga koy defal ndax alquran moy yitteem moy leppam li Cheikh ibrahim Diop di wax ne amuloon wenn wérd lu dul alquran ak tag yonnati bi salaahu wasallam sëriñ Jean bi nag bu ñu dégloo ci sunu kilifa yi comme fekkee woon jotaay bu jëkk bi waaye mën nañ ca jëlee ci biir seeni wax loo xam ne danañ ko mën a saraa ndax dafa nekkoon ab jàngalekat nekk ab yarekat te defe naa kiy yare di jàngale kooku mooy tabax nit ku mat ki nii wut moo ko mel a tabax ndax bu fekkee ne nit ki jàngal nga ko te yaruloo ko dana am genn wet gu gu des boo ko yaree te jàngaloo ko yi dana am wet gu des waaye sëriñ bu nag day mel ni moom képp ku génne fi keppaaram niñ bëgg ko ni mel noonu ngay mel loolu nag kon ab ab yarekat la woon boo xam ne wane na ko waaye jàngalekat la boo xam ne it wane na ko la mel na ni tey boo doon xool ci biir yoonu murit bari woon a ëtt boo dem tey fekk fa ñooñ alxuraan ñoo xam ne ci keppaaram lañ génne wala daara yoo xam ne tey juddoo waat nañ ci biir ay daaraam ndax ci ay daaraam lañ bàyyi ko sampaat yeneen daara waaye gis nga ci aw nit ñoo xam ne euh, mel na ni yoon wi lu bari ay ay ay ay pàcc la waaye kër sëñ yi bu moom kuy kuy am ab seetlu mën nga faa fekk aw nit ñu dal waaye nit ñoo xam ne it ñaari tànk rek la ñuy doxee ما الشريعة والحقيقة تلول في عندي ونسن أجدد الشريعة المطهرة إن شاء وحقيقة منورة نخبنا بين لك مانكي تفين سري شايبو نمي دون الشريعة دي أكديكو جنجلة ديكو ديجل نيني ونوبي ديكو جفه بو دمي تي والو تالي بيجي كان منكو سين كان منكو سين تي أكتالي بي نخبنا لغاي نورو كاوغا جفه الشريعة دا نماتي بوكو toppoon ci xuru ak taalibe lu sew xel gaaw-gaaw doo seen Serigne Souhaïbou ci bëgg Serigne Touba ci bëgg ñun Serigne Touba ci warmaan ñun Serigne Touba yi loolu da koy feeñ waxtu wu ne waaye xër ci sëriñ bi xërin woo xam ne it tax na mu di ko waggar xam nga bëgg dara te xàmmee woo ko dana tax doo ko mën a waggar Serigne Souhaïbou nag bi mu bëggee sëriñ bi daf ko waggaroon ba ne booy seetlu lu ëpp ci ay mbindam ay soññee ay ñaan ca lay wax waaye wetu sëñ bi moom day mel lu tuuti la cay leer ndax benn lépp lu génn ci gémmiñam deug la te kum xajul ci sa bop ba nga gisse neneen amna leneen lu lay jural te mom day jariña kat bo xamne bugul kenn ku lor motax wet gi nga xamne nit ki du ko lolu mom serigne chan yi bi da koy teg ne mu melni kon tawfiq ji bay daam wax legi ku feñ jamono ci bis bu genn ci bis yi muy bisu aljumaa feñ ci wer yu genn ci wer yi muy weru koor sa métier gënoon ci métier yi muy jàngale alquran kon damay yaakaar ne bu fekkoon ne dañoo jël tey benn exposition rek tànn ñett ne kii del aljumaa la feeñ weeru koor la feeñ alxuraan a nekkoon métier kii lañ bëgg ngeen wax ñu ko mu indeegoo doomi sëñ Tuubaa la indeegoo nangam nangam nangam day mel ni kon waxuma cërub doomi sëñ Tuubaa ji waaye jëmmi xam responsabilité bi li tax doomu aadama ñëw ci kaw suuf loolu solution yi moom da ko marqué ba teg ci ay ba saa yooyu tudd jullit xaqan di tuddu nitu yàlla deug di tuddu mouris sadiq da nga tuddu serigne chaib xana waxuma walu serigne touba gi ci way jurom waye jëfi bopam rek andi nako lol lool sutu tuddu ci aduna do na Sénégal l'islam tuddu kuy taxawal diine wala ku koy dundal te do ci bolé serigne chaib bu fekkone ne alquran dafa nek ku jëm daf ko sengé ba tumu ranké wul te serigne touba mom aw tagam moy alquranul karim ku mas a yor alquran di koy wecc ko sax man nga dem fi béréb jaay ko jafe la waye bo ñëwé fi Serigne Touba bu doon da ngay jaayé fukki dërëm Serigne Touba bu lay jënd buy jënd ci jooni lay jënd ci yow te loolu defe na naar yi ibn al Hasan al Alawi yaakaar mo doon wax lu mel non ma in ubali idha madanna du mali anni bi ajrati xatti masafil hali ma dama qawsul wara hayyan yubajjiluhu haqqan wa yabzulu fii xaaliyal maali fi kulli yawmin tuwaffi alf mansalihi tutla bi amsaali min baadi ma amsaali walaay ma shaadahu illa biha sarafa wa basul ma lam tanalu kafu basdali da daan wax ne képp koo xam ne yaa ngi yor sa alxuraan de ma ñëw di la jaay nga nay ci jënd ko yaa xam faalewu ma la bu dee sëñ ngi fi daal kum neex bul jënd kum neex bul jitteewu alxuraan waaye moom de yoo demee fa moom di ko yët alxuraan lu gën a kawe ca la nga doon jort la sëriñ Tuubaa di jox te xàmmeewul junni kaamil yi dugg ci suba gi ak junni kaamil yi dugg ci ngoon gi waxtu wu ne bu kaamil di rommante yi neena du ko gëna dolli lu moy mbekté ak sawarte ci wéccu ko golole waye nak ci biir wax ci daf caa dem ba egg mëna tilkal karamat lam yasal siyahu biha fil alamin min abdalin waqtaab min aqtaabi wa abdali mëna ne ji sëñ Tuubaa am ci alquran nak amul kenn ku ko am ci abdali amul kenn ku am ci aqtaabi légui lutax ba lolu mu man ko am mu nako da nga am wuté ci digënté ak nit ñi ndax yow jëfoo ngir aduna jëfoo ngir payug aduna looy jëf ëllëg a tax te nit ñi lu ñuy jëf tey a tax looloo tax nga raw leen maa anta wa nas tasa wa tajsalu fii naylil maali wa hum yasawna lil xaali ñoom seen jëf yëpp tey la yow nag ëllëg loolu nag yàlla daf ko fay sëñ Tuubaa ci tey sëriñ Chouaïb xoola bu koor gi ñëwee ñu ne naafila yi sëriñ Chouaïb waaye ah, léegi loolu sax nu mel léegi-léegi nit ne naafila guy nangam amul xanaa naafila la moom moo gën moo gën dem moo gën nekk di whatsapp lu lay jege jegeloo yàlla xam nga yonent bi salaahu salaam dafa wax ne ab jaam dana jegele jegelu boroomam ci nawaafil waxul ci leneen da xanaa ci ay nawaafil la wax xanaa kay la nga nar a nekke di wax lu dul ab safaan sànni sa der allahu akbar kabar ñaari rakk jëm sa borom léegi jëmmi sëriñ son yi bu nag ubbi gim lay ubbil njëriñ li ci nekk ndax kii kiy piblicité dara sax bëgg nit ñi ñëw ci communication bi muy def mooy nangam lii produit wu la dama koy jaay ku ko jariñoo nangam suñu champs bi bañ ko yaafus bëgg nit ki jariñoo boroomam ak njariñ li ci nekk ak bénéfice yi mu am mooy tax mu ne ñaari rakkay sangam wala ñeenti rakkay sàngam ñetti fani koor wala ñeenti guddi koor ku ko neefi li am nangam tiyaaba jooju ab jaam ni mu bëggee njëggalu yàlla bu déggee ku ne ko ku def lii am ko day daw ngir wuti loola xanaa loolu moo tane ci garam place ne ci ay waxtaan yu amul njariñ ba du mu jural la ab safaan léegi ki la faggul loolu nag nan la mel bis yi doomu adama war a xam ak ni war a mel ak lépp sëriñ bu di la jàngal melokaan woowu bàyyi ko fi adduna ba léegi tey jii tiyaaba jooju saa yu ñëwee nga mën koo fàttali ko mën koo jàng nga nga mën a nettali mu nekk nit koo xam ne it defe naa lu ëpp ci nit ñi moom dégg suñ son yi boo gën a yomb ci ñoom gis sëriñ son kon day mel ni li ko Sëñ Tuubaa bàyyee woon muy toolub alquranul karim moom ca la saxoon féete woo jàng ak jàngale te loolu ko ci la Sëñ Tuubaa nekkoon ba ko benn naar di tagg dana ko ñeent yii daal lu mën a xew ci nga yàgg sax muy dëdd adduna ak jaamu yàlla ak jàng ak jàngale defe naa mbubb mii ku ko solo Sëriñ Souhaïbou dana yem ci moom képp muy dëddu adduna ak jaamu boromam sëñ Mouhamadul Mamoun ñang damay gis ci xasaayu xasida googu mu doon def ci Sëriñ Souhaïbou mu wax ne Sëriñ Souhaïbou boo ko bëggee xam mu ne mexraabam ba mooy néegam ba mom serigne Souhaïbou nga xamne amul jennité lu moy ci tuddu boromam waye jëm ci boromam ci diko ko jaam waaye yërëm bindee fi nag yërmande joo xam ne bu sañon suñu borom jéggal fi yépp ngir yaatu yërmande gi nekkon serigne Souhaïbou ba tax mu len dan lay lay biré néna yitté wo xam-xam ak ñoñ xam-xam ni baña faddu sax sëriñ Souhaïbou day waxtané ñoña ngir nit ñi mëna jariño seen melokaan yi kon jikko yu sel yoyu nekkon ci Serigne Chouaïbou bu nga xam ne tey booy tudd euh, ak dëggu di tudd mandu di tudd njàmbaar di tudd ak doggu ak yitte jure bàyyi daam wax na ko léegi waa léegi koo xam ne jàkka ji nga daan jullee ab dóor dóor la nga am néegu ban boo xam ne lëndëm ngaa lépp nga ca daje kon léegi lan mooy màndargam Serigne Chouaïbou mooy axlaaqul quran wa siimatuhul huda ñu la daboon fii rek ne la kuy kan portaleel ma sëñ son yi mooy kan luy jikkoom neel sëñ son yi bu daal jikkoom mooy alquran maanaam li muy signifié mooy ak jub waaye wal xaq day danuhu nag dëgg nag mooy jikko sëñ son yi bu nga xam ne tey melokaanam la nga boole dëddu àdduna googee xam nga kii kii xaar ku ñëw fi moom waaye da xool doylu xam nga doylu lu jafe la te nii lu nekk li ñoom jamono jafe sa peri sàkket mana a ya yaraax ba ku fa dugg nga séen ko te ki ñew di dugg ci lim yor bo mënoon a jóg yow mom ngay wuti mu yor ko nga tok di xaar te doko ko doko jëli ah señ bi lolu lolu lolu matna naa ci nit ki boy wax ku ku deddu waye ko xamne doyluna waye ko xamne koo xam ne gore na muy sëñ mu am confiance bo xamne ne ku mu bokkal Serigne Touba rek wala nga bokk ak mom islam bi wolu won nga Serigne Souhaïbou Serigne Souhaïbou mom amul ci ëttu mourid waye kuy wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammadur rasulullah rek wul won nga serigne Souhaïb doyloo woon nga ko sa digeentek sa borom xam nga ni ki doy na la ci seuk ngir ak mandoom ngir ak euh kon nu ñom dañuy top ci seeni dank rek euh serigne bu nak damay wax ne ni ko kilifa yu bax yi di netlé jamono tollu ci bu ñuy wut royukaay yu dellu siwaat ci ku mel ni moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne alxalqu iyaalullah ahabuhum ilayya yi ñoo njabootu yàlla ki ci gënal yàlla mooy ki leen gën a jëriñ solution bi nag jëriñ na mbindeef yépp ci wàll gi mu féete muy xam-xamam xam naa jàngkat yi bu ñu doon xool tey arafi turam rek lu ci nekk mën nañ caa jàngale solution yi bu باتو شعيب برك بنا ون شيخ شاكر يأمر بالمعروف خائف مكر الله واي عابد عالم لولا من غو تا تكي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر واي باثل جهده في العلم معلما موي سيرن شعيب دافلا نينتي باراف في من غو تك اب سيرن لاب سيرن موي كان mooy koo xam ne day sant xéewalu yàlla bi ci lu mu mën a mel sëriñ Sohaybu bu jamonoy tar ak jamonoy yombal lépp a yem ci moom sant boroomam rek waaye it doon aji digle joo xam ne aw yiw lay digle di tere ab safaan ak ragal yàllaam nag ak bañ ko naagu ci mbirum suñ borom tax na ay soññeem waxtu wu nekk mu ci daan nekk waaye bu ne jaamukatu yàlla la ne boroom xam-xam la ñi génne fi moom ak ñi doon tàggat bañ na ko ba gaa yu bëgg lu yomb lépp am na sama ku ma mas di waxtaanal ma ne ko mun a fekk dañuy def benn tournant ñu jaar ci pencum seen champs yi mu ne ma ku nekk fii mu ne ko seen champs yi mu ne mooy sëñ bu tàng bi ah sëñ bu tàng bi moom mooy kër mu ne ma kii moom daa taral moom sëñ sëñ champs yi fekk na la muy jàng ca la muy digle ngir li bàyyi daam wax léegi wala sëñ Cheikh mi wax ko Gunur bi ñi bañ mu tabbi ci biir sebbu bi ki dak mom mi ngi son waye nag gunur bi de bu rëccee ba tabbi ci sebbu bi dana xamne lu borom balaa mi doon da ci upp mom mi ci biir sawar dana lañ ko raw kon xol joju joj momu jangale yeen ak kon bañ kenn ku tabbi ci safaan ak lu koy lor ndake mom choona bi mu don daj yep ci pousante bi ak taral gi ak bañ ku beut ki day xamne li mu lay artu sa yo ci tabbe la nga gëna metti te bëggul nga tabbi ci loolu nag euh, lu lu mbir la moo xam ne mu yaatoo yaatu la waaye li ci gën a bokk na ci li ci gën a yéeme mooy njabootu Serigne Touba gi niñ bëggee woon Serigne bu waaye niñ doyloo woon Serigne Souhaïbou nga xam ne koo xam ne mën nga ne doomi Serigne Touba ju nekk ak waxtu wa muy visité ji Serigne bu ak waxtu wa koy seeti waaye niñ ko doyloo woon ci melokaan woo xam ne seen diggante ak Serigne Touba sax dañ ko cee doyloo woon dañ ko cee wóolu woon lool doyloo ko ci nga xam ne loolu tey li ñu wax léegi ne ci ay tool di baylu ci jamono ni mu jafee sa kilifa jaar ca gannaaw jaay la nga bayoon lépp waa léegi sax loolu li muy yéeme yéeme waaye man koo muñ waaye moom la muy rijjli ci xolam mooy yàlla bu lam jël ñàkk mat la muy wut moom nga xam ne léegi mbég la ko ciy xaw diis bu doon lu koy diis la mooy mu ñàkk mat yi te jël sëñ bi loolu defe naa mënees na caa jànge ci euh, Serigne Souhaïbou naka kon Serigne Souhaïbou kat toogam toogoon di jàngale ca daara ja mbooloo mi ñëw njaboot gi ñëw di jàng waaye ndake ma nga doon liggéeyaat beneen liggéey boo xam ne nag mooy cosaanul yoon wi te loolu mooy am kilifa te ci ak taalibe gu gu wóor loolu nag melokaan la woo xam ne euh, tey jii yàlla fay na Serigne Souhaïbou ndax boo tuddee weeru koor tudd Serigne Souhaïbou boo tuddee alxuraan tudd Serigne Souhaïbou nga xam ne tey waxuma ay madaris waxuma ay nangam waaye bu ñu jëloon mboolem jàngu yëpp soppi ko duppee ko sëriñ bu taxul ñu jotagul xàqam ci ci loolu waaye ak niteem googu moo waral suma woy jur yi li ñu wax léegi bu nit tawatee loolu xam naa di Abdou Samad mi doon na ko ci moom boo ne ko sama tànk bi day metti mu lay jëkk a wax mooy am na docteur bu nekk Ndakaaru boo xam ne de moom jàmbaar la ci loolu bi ngeen ko waxee rek sama xel dafa nekk ci loolu te man lu ci nekk may dama ko dund ci moom sama tànk day metti mu ne la ndakaaru am na docteur bu fa nekk boo xam ne ku man ay tànk la léegi nga dem ndakaaru yow di toppatoo say tànk boo ñibbisee kii indi ñaan gi ñëw na la sëñ bi nag nee na nga jëfandikoo li ndake kon loolu doxin woowu ci sëriñ Soxna bu la ko sëñ Abdou Samad ñi euh, jële loolu it kon ak nitee la waaye ak xam fi ngay jaarale nit ki la ba li def ci moom mën a mën a nekk lu lu matamat loolu it tey jii ñii toog di dinu nettali Serigne Souhaïbou nga xam ne lépp lu luñ ci wax ñoom dañoo fekke loola mu jëf ko te li li nu ci nettali ñoom ñii boo leen dee déglu da ngay xam ne liñ bàyyi ci biir moo ko raw ndax lañu doon dund ak moom ak kamu doonoon nga xam ne jàkk euh, euh, boo masaa gis Serigne bu xanaa lu gaa ñi xaw a kii kii léegi-léegi ca jumaa ja nga góor góorlu ba euh, mën a mën koo gis wala nga gis ko ci jullikaayam waaye boo ne jàkk jëm rek saxal dem ci Serigne Touba نخمنه دكو نورو سبيه سيخن سا وصفين وجمال دفا نورو سرين توبا شي او ميلو واي نورو كو او دفالين واي نداكي لي تخ سرين شويبو نيكون كو نيتي موي وخمو سرين توبا دلال واي اورينتاسيون سرين شويبو سرين توبا لا بايكو كو خمنه مولاي واخ بوي تك دارا ولا ييكتي واخال نانغام لولو كوكو سرين توبا ديف تي ياو سرين توبا جيل برنه دفال لا بو نوبي غير سا ورا مانا امنو تاخاوي بو ألجي كون داي ملني سرين توبا moom moo waajal sëriñ Souhaïbou ngir tool bii mu ko war a wuutu ku mel nii rek la war a mën a doon faaw nga doon aji muñ faaw nga doon aji dëddu faaw nga doon aji naan moo tax araf yi alquran yëpp boo ko jëloon nga xam ne huruful hijaa yi benn araf bu nekk mën na jël jikko sëriñ Souhaïbou benn araf bu nekk rek mën nga koo jël tey tekki ci melokaanu sëriñ Souhaïbou nga xam ne boo ne ëllif oyof boo ne baana baax boo ne jim jàmm araf bu nekk ba mu jeex takk mën nga koo indi bu ne joxañ la sëriñ Souhaïbou kon moom téere bi mu doon jàngale moy akhlaqul quran moy Serigne sahib te mom non lay pratiquer alquran do diko ko batay aduna bi tollu fo xamne nit ñi war nañu bàyyi xel ci lu mel non ndax euh doomi Serigne Touba rek dafa doy cër taalibeeb serigne Touba rek dafa doy cieur xam serigne Touba rek dafa doy cieur waye nak liggéeyal Serigne Touba te serigne bi liggéey lola nak mo rawati ca lola te wax naa ne koo xam bi khidmatil kitaabi wal xadiis yi yasbutu laa bi dahabin mawruusi sëñ Tuubaa day moo waxal boppam ne man ci liggéeyal alxuraan ak addis ci lañ may donne mooy sama ndono héritage su sëñ Tuubaa mooy alxuraanul karim kon ku ne ci alxuraan di ca xëy yaa ngay taxaw li sëñ Tuubaa bëggoon ci tool boobu ci melokaan waaye bëggoon ko ci nangam ber sëriñ Tuubaa nag ba mësta nungu tudd sëñ bi boole ko ak dara dama masa dem xaw ma tuma kër sëñ Mamor Pakala laa ko fekkoon kilifa googu gay la sant may waxtaan ak moom bis ñuy waxtaan ci nii ñuy bere seen bi rek mu ne ma sëriñ soxna bi la mas naa koo nuyu bis na ko yaay sëñ Tuubaa nga xam ne ak xërama ci yóbbu waaye dafa rocc loxoom nee na bàyyi ba mu am ay fan mu woor ma ñëw mu ne ma loolu moom bu ci dara xiir ba nga di ko wax kenn ndax kooku du kenn nga xam ne kenn nunguwul nee na moom ma waxal loolu boppam ci mësul nungu ku ne sëñ Tuubaa nang ma nang te xoola wet gee muy jàngale ak la muy wax tey jii jaawartu bil furqaani rabbil muin ba sëñ Touba doon wax ca Abdallah moomee ceeb sëñ Mouhamadou Lamine Diop Adagani doon ko nettali moo ne njariñ lu ñu waxoon ci jaawartu rek ba nit ñi di ko dégg ba di jëlaale ab néew di ko ci robaale tey ji buñ xamee dëgg dëgg njariñ lem lamboo sëriñ Sooy boo nu ko jàngal tey tey kon néew bu waajee xaw ma feneen de waaye fu bu waajee ci kër sëñ Touba de yóbbaalu passeport boobee wala yóbbaale jaawartu boobee yaa ngi koy yaa ngi koy yaa ngi koy yóbbaale te loolu bu amee tey sëriñ Sooy bi moo tax loolu ñu mën koo jëriñoo bokk yi sëñ son yi bu daal mooy koo xam ne ndake boo déggee sëñ son yi bu dëgg mooy day bëgg nit koo xam ne sëñ son yi mooy ku am jot maanaam sëñ son yi bu daa bëgg boo toogee senn saa su ne am na loo war a wax senn saa su ne am na loo war a jëf jamono bu ne am na ci loo war a nekk kon moom ndake dafa doonoon ko day bëgg waxtu wu ne ngay ngay ngay ngay dajale ay ngëneel waaye ngay tonewu sa diggante ak sa borom waaye bëgguloon ko am benn féex ci genn jamono joo xam ne nekkoon kon sàmm sàmm googu mënu jàngaloon kon daal ku am ku mel ni Serigne Souhaïbou bu nga xam ne tey ñii mu tërbiyee defar leen seeni maam sañ Tuubaa defaroon leen boo ñëwee ñi mu jàngal yar leen def leen ci aw yoon booy wëri boroomu xam-xam fekk leen ci waaye booy yëri kun gërëm defar ko fekk leen ci kon nag yàlla na yàlla gën a dolli ay gërëmam te yàggal fi nag njabootam ji tàmbalee ko Sëñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ne te jii mu nekk ci bopp njaboot bi waaye ak ngërëm yooyu jëme ko Cheikh Abdou Samad mi nga xam ne moom it benn la sëñ Mouhamadou Lamine Diop Dagana doon wax Cheikh Issa jenn ci bi muy nettali ci nubsatu taarixiya di wax na benn occasion ba baax Cheikh Issa Diagne mosu ko nangoo rate fu mu seen ngëneel rek fexe na ba am ca mooy sëñ Abdou Samad mi sëñ Abdou Samad loolu la doxee moom it amul benn saa boo xam ne nangu na aw yu wëcc ko ndax jataay yi tey jataay bii boo ko santaane woon ne ca biir des na ko def boo ko santaane woon feneen nekku fi des na ko def waaye lam cay wone mooy li ngeen ci li ma ciy deflu li ma leen ci yéene ngeen am ko ci loolu laa ci bëgg ma te loolu mooy aw yiw ak nga leen kon nag kii nu doon waxtaane nag yow muy seetaan kii ñu doon waxtaan ak yow muy déglu boo xamul mooy wéju Cheikh Abdou Samad mii nga xam ne daf lay yéem ci bu ne mayee na oto wala dafa lay yéem ci maye nay kër wala jël na mbooloo mu dul jeex yóbbu leen آه، مكه المكرمه ولا ووتلنا او نيت اي دارا ولا تخاونا ني القران واي اصلاح ذات البين ني سيرن شعيب ميلون سي ديفار يا خامن لوما سا يندو سي يون وي سي لو نورو اب سفان سيرن شعيب دوختا يوني تي سي الاسلام بي فيب ما مل سي عبد الصمد ني نون لا مل تاي جي دافنا تاليبي ييب امل نانكو اك نجوكل نجوكلوك لان موي لغي لغي سونو دويدي ولا سونو تو يوبو ني سونو واتي او يون moom mooy sol mbubbum avocat jéggulul nu moo nuy demal ci sëriñ ba te bari na lu waroon a yàqu tey bu tàbbee ci noppam lu yàqu maanaam sëñ Abdou Samad bëggul ku dëggaate kenn loolu nag euh, bu nuy wax bu fekkee ne bàyyi daam ñoom ñi bàyyi cheikh ñi ñoom la ñoo dund sëriñ Soxay bu nag man mii damaa dund Cheikh Abdou Samad te sëñ Abdou Samad kon <laughs> bu waaw waaw kon comme dund naa ko may nag dama leen di xamal ne kenn doon waxtaane daal na nga xam ne kii mooy lenn ci moom muy Cheikh Abdou Samad bëgg lu baax noonu la juboo ki bokkam juboo ñëpp kenn ku ne defe nga ne li nga am ci moom yow rek yaa ko ci am man de yàlla xam na ne sëñ daaru mi mooy sama seere maa nga woon ca sali ca mbuur nee naa ko dama doon noggatoo fa ma nekkoon moom baaxoon na ndax ca kaw laa toogoon te ñi doon nuyoo doon doon joxe dara waaye bi ma sëñ Mouhamad wooyee na ma sëñ bi nee na jataay bi dama toog ba yàgg ma ne as gorde bu waxagul moom moom boppam gis nga fi ne gor dafa metti aw nag fi ne buñ koy rendi rendi lu topp ci rendi moo gën a métti rendi fi mais nag buñ koy rendi ci lay wéqu waaye buñ koy fees du wéqu buñ koy togg du wéqu as gor benn yoon nga koy jam boo ko xësee jam benn yoon lu tëdd na yaa ko moom ah kon nag looloo waral nu it nu bàyyi yitte yëpp ñëw fekk si fi jataay bi am ci mbégte noo ngi sant sëriñ ba suñ maam Thierno noo nga lay gërëm ak kilifa yi fi nekk yëpp kon ni ko suñ gànna waxee rek wane liggéeyub suñu sang bu doy na ci wane leen yéen ñii wane leen yéen ñii mooy résultat yi ana sëñ gànna hmm, da nga làqu lot bu ko defee gone yi njëkkoon a waxtaan rek ñoo xamee ci ne yoon wi amul tànki ganaaw tànki kanam rek la am ndax satub sëñ fàllu satub sëñ ablahat satub sëñ chaibu sëtub sëñ moor Soxna ak sëñ Basiiru ñoom ñoo àndoon ci jataay boobu yi waaye ñoom it nañ fi loo xam ne dalal na xeli mag ñi ndax nañ ci ne yoon bi am nañ gone yoo xam ne xam nañ li xew xam nañ liñ am te loolu dafay dalal xelum mag waaye yaakaar naa ne bi ñu noppee ku ne defoon na ne kenn du amatuloo wax waaye nag seen baay yi biñ ñëwee ba wax indi indiwaat nañ siy son bu nag ci weneen melo ak beneen modèle boo xam ne ñee ci alxuraan ak sëñ son bi lañ doon wax alxuraan ak sëriñ Tuuba waaye ndegam sëriñ bi daa làmboo jikkoy alxuraan yëpp wet gu ne mën nga caa waxtaane sëñ Tuuba kenn ko indi ci njaboot tamit mu doy sëkk modèle doy sëkk royuwaay doy sëkk uswa xasana man nak lépp dama koy delo serigne bi rek serigne bi rek moy lu ken xamul moy ku ken xamul ndax mom moom mii lii gànna wax léegi bo xolé pass passam ci serigne bi dafa bolé ñaari tànk yeb te do xam bu ci ëpp doole الشريعة المطهرة والحقيقة المنورة teengal naa teengal a teengal boo ko xamul sax danga naan sëriñ bii daal da ngay am foo koy féetale waaye boo jox sax moom fekkee waxtaanam xool fi mu teg sëriñ bi danga naan xanaa kii di kii di bind téere bii du kii cër bi mu joxe ci boppam lim jox ay magam ak i kilifaam te pas-pasub Sëriñ Tuubaa tax kenn fekk ko ci yi nga doon wax yëpp am na lu ma gën a yéem ci loolu mooy kenn ci waa këram jigéen joo xam ne ci njabootam la sëñ Blaat joxe na ko ba dem këram ba am fukki fan ak nangam te yëgu ko nga xam ne yilif gi sëñ Blaat yilifoon këram te sëñ Tuubaa tax gisagu ma murit bu àgg foofu boo xam ne daa bàyyi ko cent pour cent bàyyiwul dara ba ci njabootam nun ñii rek booba kenn ñi mu bëgg dara. demal sa bopp wuti ko déedéet bu bëggoon soxna boo ko waxee daan la damaa am kilifa ni nga amee kilifa bàyyil ba ma yónnee ci moom ba xam ànd na cem de am na sama kilifa goo xam ne am na ku mu doon bëgg ndakaaru ba mu duggee ci noppam da ko ne bàyyil ma yenn Ibra Gay ci sëñ Abdu wax ko ko ba xam jubu na ko mu de bu ci joxee ndigal ñi def ko bu ci joxul ndigal du mën a sotti ndax man mii sax sañu ma dugg ci dara wala muy génn ci dara lépp moo sama kër gi sax doonu ma ci dara <laughs> teew dañoo nawante nit da ngeen nawlonte ci bokk te doo ko naw waaye ñoom dañoo nawlonte ba noppi nawante bokkoo seenu bokk ba noppi bëggante loolu nag jamono laaj na di ko jàngat di ko jàngat nit ñi di ci roy jamono yàqu na yàq gi tasaaroo na waaye bu ñu andee modèle yii njabootu sëñ Tuubaa gii sëñ bi dafay bàyyi loo xam ne du fi jóg mukk mooy lim bindal boppam ñam yaral boppam ñum jur koo ci indi rek muy teef koo ci indi rek boo xoolee ci moom muy làmp bu leer bu lay leeral fi nga teg sa tànk kon nag noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax a ah, di leen dalal xel rek yéen ñi nga xam ne yéenay suñuy mag te seeni maam nga ngërëmul sëriñ bi ba sëriñ bi def ca ñoom loo xam ne yàqu leen ca dara leen ko jëme kanam te lu ñu leen woo rek lu mu xat-xat lu mu sori sori ngeen bàyyi lépp ñëw wuy sinu kon la maam ya toppe woon maam ya rek bàyyi toppe ko bàyyi ya loolu ngeen di xool ci noonu donte mati wuñ ko waaw donte mati wuñ ko ba tax loolu moom sant nañ bu baax a baax sëñ sëñ Cheikh <laughs> sant nañ bu baax a baax sant nañ bu a baax a baax di ñaan yàlla jataay bi rek bokk ci jataay yi sëñ Touba gërëm te képp ku fi teew rek am njëgalug yàlla ak yéen ma dem ci barke sëñ Touba. yàlla jërë ngeen jëf kon nag ñaan فيه جاء ذكره والفيضان ضيافة